xam ne donc def na comme recommandation pour que ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy euh, li nga xamante donc contre mooy feebar boobu euh, parce que it feebar boo xamante ni la mu ngi ci ñun ba léegi war nañ ci donc taxaw ay taxawaay pour que masque ak gel donc ñu koy jëfandikoo fu ñu toll ci loolu sax euh, ñu ngi ciy gërëm bu baax a baax donc mu muxaddimatul xidma parce que ñoom prévoir nañ bu soobee yàlla distribuer ay masques waaye it Euh, ay gel pour que maladie boobu feebar boobu bañ a tasaaroo euh, bu dee lu jëm ci wàllu hygiène euh, opération de désinfection et désinsectisation donc commencé na depuis et fi ñu toll nii lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñaari domicile traité nañ ko waaye it service d'hygiène yamul foofu parce que dañuy sensibiliser aussi ñi nga xamante ñoom ñooy askan wi pour que donc ñu fa fagaru contre maladie feebar yi Euh, contrôle aussi denrées alimentaires yi donc service d'hygiène mu ngi koy def loolu en rapport avec service du commerce euh, nga xamante ni fi ñu toll nii donc ñu ngi euh, bu soobee yàlla bu màggal gën a jub si dinañ ci gën a gën a taxaw bu baax a baax bu dee li jëm ci wàllu sécurité muy force de défense et de sécurité yi police gendarmerie waaye dem ba ci sapeur donc dinañ am taxawaay bu mucc ay jàpp naa ni sax ay renfort bu soobee yàlla police ak gendarmerie dinañ ko dinañ ko am Euh, ba tax na donc ñoom comme ni ñu koy waxee donc euh, toujours dañuy monter en puissance euh, du ñu def mukk lu yées li nga xamante ni donc defoon nañ ko par rapport ak édition bi passé loolu sax da jàpp naa ne am na ci loo am donc ñoom police ak gendarmerie daanaka dañuy liggéeyandoo sax ensemble bu dee li jëm ci wàllu ndox fi ñu toll nii bis ni tey am na cinq comité Euh, cinq camions citernes yoo xamante ni mu ngi Touba yoo xamante comité d'organisation bi dinañ ko mën a jëfandikoo bu ñu jógee fii pour man li nga xam ne moom mooy ay euh, ay ay ay ay bassin yu nekk ci kër yi ñu man ko root balaa màggal gi di jub si waaye it lii di ay bâche à nga xamante ni bâche à yooyu mu ngi woon Poroxaan bu soobee yàlla fii ak suba ñoom am na camion bu oto boo xamante ni dañ ko met à la disposition de l'OFOR pour ñu mën a jëli bâche à eau yooyu man ko remplir balaa donc màggal gi di ñëw euh, ci lu jëm ci également euh, forage xañ na am na ay forage yoo xam wax nañ ni donc forage yu panne la yooyu moom jàpp nañ ni te ne fii ak màggal gi dina jàmp wante dispositif citerne ak bâche à eau yi dina mën a vraiment fexe ba soulager ñi nga xam ne donc ñoom ñooy pèlerins yi nga xam ne ñoom ñoo fiy ñëw ci ci màggal gi euh, leneen li nga xam xañ na moom lañ ci yokkit mooy forage yi nga xam seen débit dafa wàccoon fi mu nekk nii forage yooyu yëpp relevé nañ débit yi Euh, bu dee li jëm ci wàllu Sonaget maanaam affaire euh, euh, nettoyer Sonaget déjà commencé na li nga xam moom mooy activité donc nettoiement yi depuis donc le vingt et fi ne nii donc ay dispositifs également bac a ordures dinañ ko dinañ ko mettre en place notamment ci côté grande mosquée mais également fépp fi nga xamante ni donc ay ay ay ñuy màggal si dinañ fa daje. ci lu jëm ci wàllu wàllu énergie maanaam wàllu courant ñaari groupe électrogène prévoir nañ ko. waaye bokk na ci loo xamante ni lu toll ci juróom benn fukk ak juróomi agent yoo xamante ni donc dinañ leen mettre en sur le terrain pour que donc lépp li nga xam moom mooy intervention donc mu mën a gaaw soo xam am na ñoo xamante ni soxla nañ intervention donc mu ñu ñu mën ci jublu ci nu mu gën a gaawee bokk na ci loolu donc extension réseau électrique bi nga xamante ni démarré na mu ngi en cours te extension boobu surtout jëm ndindi euh, loolu waa donc agence euh, Senelec yi donc ñu ngi ciy liggéey Euh, bu soobee yàlla it mise hors délestage bi donc dinañ ko dinañ ko def euh, branchement provisoire yi aussi euh, incha allahu rabbi donc ñi nga xamante ne sollicité nañ branchement provisoire dinañ ko dinañ ko def ci lu jëm ci wàllu lanterne yi liñ ci demandé woon mën nañu fi ñu toll nii fi mu nekk lu toll cinquante lanterne donc mu ngi fii ci Touba te am na yeneen lanterne yoo xamante ni donc ñu ngi koy xaar ci wàllu environnement Euh, permis yi nga xamante ni euh, demandé woon nañ ko mu permis donc de coupe de coupe de bois permi yooyu disponible na euh, te comité d'organisation bi donc confirmé na donc permi yooyu donc am na ku ko ku dem jëli ko pour que donc ñu mën a am loo xamante ni moom mooy lu jëm ci wàllu wàllu mat ci wàllu communication Sonatel mettre na à disposition donc benn ligne téléphonique waaye it def na loo xamante lu ëpp loolu sax parce que am nay ay fly box lu toll ci ñaar yoo xamante ni jox nañ ko comité d'organisation bi nga xam ne accompagner nañ ko it ci lu wàllu jëm ci wàllu Ilimix pour que donc ñu mën a ñu mën a woote eh, pour euh, li jëm ci wàllu wàccaayu màggal bi euh, globalement daal en en en synthèse en résumé donc loolu moom mooy li nga xamante ni moom lañ fi doon waxtaanee ci fi ñu ci toll donc ci wàccaayu màggal gi nga xam fi ñu toll nii mën nañ ni am na ci yoo xamante ni mesure yoo xamante ni def nañ ko. am na ci yoo xam nag xañ na bu màggal gi jubsee incha allahu bi ci lañ ci ci lañ ciy mën a taxaw euh, ci jàpp nañ ni donc màggalu Kazu Rajab édition 2024 bu soobee yàlla dina mën a jaar ci jàmm ak salaam euh, yàlla bu ñu mayee kàttan dimbali ñu jàpp naa li nga xamante ni état war na ko ci taxaw bu soobee yàlla dinañ ci def lépp lu ñu man pour que donc benn jafe-jafe bañ cee am ñu ngi leen di gërëm jël jaajëf waaw ci euh, tàmbaliment bi dama ne woon ci lu jëm ci wàllu wàllu santé laa doon wax donc wàllu santé yi li ñuy wax post médico avancé bu soobee yàlla am na ci lu toll fukk ak ñett post médico avancé yoo xamante ni district sanitaire dina ko mettre en place waaye it dina am quatre dispositif fixes yoo xamante ni euh, donc yooyu dinañ ko mettre en place euh, bokk na ci it euh, li nga xamante ni moom mooy ay wàllu garab bu soobee yàlla dinañ am dotation tey jàpp naa sax donc par rapport ak édition bi passé dotation boobu dinañ ko renforcer ambulance aussi dinañ ko dinañ ko dinañ ko jot ba tax na donc màggal gi lépp koo xamante ni en tout cas soxla na faju bu soobee yàlla dina dina faju ñu ngi leen di jël aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi a ashaabi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci ndigalul Cheikh Abdul Fattah moom Cheikh Mahamadunil Fadil di kilifa ak màggalu Kazu Rajab ñu di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi lépp ci toolub kër Cheikh Mahamadul Fadil ci toolub Cheikh Nal mu man koo def te nu ànd ko ak moom di yëkkati kàddu ci ndigalam ak ci kàddoom mu jóge ci cheikh abul baraka mi nga xam ne mooy cheikh mahamadul fadil ñu di ko ñaanal moom it mu yàgg fit ànd ak wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi lépp mu mën koo def ak mboolem ay rakkam ñi nga xam ne ñoo topp ci moom ak mboolem njabootug cheikh mahamadul fadil ak njabootug jullit yëpp di ndigal li bàyyi ko nag ci cheikh mahamadul muntaqa moom alxalifatul am li tarixatil muridiya ñu di ko ñaanal moom it yàgg ak wér ni nu ko waxee woon ku ne xam na ne kër Cheikh Mouhamadul Fadil këru ndigal la ndax moom dafa jaayoon li mu am ci sëriñ bi lépp jënde ko ak taalibe ba njëgg itam mu joxaat ko addi sëriñ bi wax ne kon moom daa bëgg a seey ci biir sëriñ bi fu sëriñ bi jëm rek jëme ko fa loola defe naa firnde ji ku ne gis na ko mu firnde leen ko ci ak xasida goo xam ne gu yéeme la waaye sëriñ bi tontu ko moom itam aaye boo xam ne bu yaatu la bu yéeme falaa taalamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati ayun jazaan bi ma kaanu kon pay googu nga xam ne sunu borom fayal na ko fayee na ko Cheikh Mouhamadul Fadil ci loolu yi mu defoon waxtu wu ne muy gën di feeñ loolu mën nañ cee joxe misaal li tax ñu daje fi tey jii muy waajal bis bu tedd bii di bisu Kazu Rajab mu doon bis boo xam ne day bis boo xam ne lislaam yépp ko bokk ndax ci la borom bi subhaanahu wa taala rañaane woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa mu doon bis boo xam ne itam ci la ko yéege woon ci la ko yéege woon wa najmi ida hawa ma dalla saaxibukum wa ma gawa wa ma yantiqu an il hawa an il hawa in huwa illa waxyun yuha allamahu shadidu lquwa du miratin fastawa wa huwa bil ufuqi al ala thumma dana fa tadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awxa ila abdihi ma awxa loolu li yonent yi alayhimu salaam di tedd yëpp ak li ñu màgg yëpp daraja jooju sallallahu alayhi wa sallam rek la ko ci borom bi subhanahu wa taala jagleel te ci guddi gii la woon guddi googu itam ci la borom bi subhanahu wa taala joxoon sallallahu alayhi wa sallam sëri cëb julli ci julli mooy armaadu diin waaye nag ci guddi googu itam ci la rombe woon mboolem daraje borom borom borom daraje yu tedd ya ñu màggal ko jox ko cëram jiital ko qad qadamuuhu id waajahuuhu waxtaramuuhu dawi naqaayi wa saada fihim wa baana anhum wa siina anhum bada tiqaayi qad aaba layla qad saba nayla qad faaqa sayla min tilbaqaayi qad jaabi mayri li ahli xayri wa baabi dahri ahli saqaayi cheikhuna alxadim radiallahu anhu nettali ñu ko ci ay xasaayid yu bari ba buñ koy jàng day mel ne dañoo teewoon rayaan gi waaye guddi gu màgg googu yi nag nga xam ne jullit yëpp ko bokk teraanga jooju ci la woon mbégte moomu ci la amee woon daraja ju kame kawe jooju ci la ko sallallahu alayhi wa sallam amee woon ci la sunu borom baaxee nag cheikhuna Mouhamadul Fadil mi nga xam ne moom la ñuy waajal guddeem goog yi mu doon bis boo xam ne bis bu màgg la cheikh Mouhamadul Fadil it niru bisam boobu yi ndax moo àggaleel cheikhuna alxadim radiallahu anhu jumaam ji gannaaw bu ko magam ju baax ji cheikh Moustapha tàmbalee waaye moo ko ko doon jiiteel waaye nag moo wooteel cheikhuna alxadim radiallahu anhu bisam bu màgg bii di màggal gii nga xam ne ku xam na ne mënutoon a ñàkk ci Touba waaye mënutoon a ñàkk ci Sénégal mënutoon a ñàkk ci tam ci ci ci ci ci Afrique sax laay wala ci àdduna bi ak yeneen yu bari moom moom yi nag doonoon koo xam ne léppam daf ko bokk nag ñëpp ba tax na bisam bii Cheikh Abdoul Fattah nee na ñëpp a ko bokk Kazu Rajab dañuy wax ne daanaka jërul sax ñu di ko woote ndax kenn ku nekk danga ko def muy sa bisu bopp ngir yu bari yi ma jiital kon mi ngi koy fàttali di woo ñëpp wax nee na ñaan ñu ñëw teewe si ko te xam ne bisum nangu ñaan la te sunu borom du fi tasa yaakaar ndax nangul na Cheikhuna Alxadim radiallahu anhu wa man tawassala bi waasilin wasal te kàttan ak sunu borom ak yërmandeem jombante naag yaakaar yi jaam ñiy tase fii mu di ko tas yaakaar du fi tase kon sëriñ bi nee na ne ñëpp maase ci màggal si te képp kuy ñëw loo am ci yitte ngi ñëw fas ko fi ndax borom bi li mu yor lu jeex te ku ko ci laaj rek la bëgg bokk na ci jaamu yàlla yi gën màgg ci jaamu yàlla mooy ñaan borom bi subhaanahu wa taala kon nañ fi tase ñaan yàlla fàttali ko Cheikh Mahamadul Fadil ñaanal ko ñaanal waa sangam ba di yaakaaram ja di Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ndax ñaan du doy sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan la te dafa wax ne saa bu ñu ko tuddee nañ julli ci moom kon mi ngi soññ ñi nga xam ne ba weer wi teroo ba tey ñu ngi jàng alxuraanul karim sëñ Mahamadul Xabaan mi sëñ bi def jëwriñ wàllu googu nee na moom itam loolu xam na ne sax jëriñoo soññ ndax ñëpp a ngi ci ñu ngi ci waaye ñu ngi soññi ñu ñu njàngum alxuraan mi daaw waa rabitatul madaris alxuraaniya lim biñ fi wax ne jàng nañ ko ciy kaamil kenn xamul nu waaye kër Cheikh Mahamadou dafa kër yëpp ay daara la kër gu ci ne daara nga fa ñoom jëriñoo soññi ndax ñoom ku ne xam na ne kon loolu mooy seen mooy seen mooy seen wàll ni ko jullit yow yëpp doon defee ak turandoo yeeg ñëpp rek ndax sëñ Fàllu ñëpp ko bokk ni ko sëriñ bi di waxee mu doon bis boo xam ne it kon waajtaay bi nag dañuy sant ci jataay bi préfet di teg ci loo xam ak cant moom ak sous préfet di ñaan mu jottali ñu ko gouverneur mu yokk jottali ñu ko ministre de leen l'intérieur ba ca kilifa ya nga xam ne ñoo leen ñoom lañ fi teewal di leen xamal ne seen taxawaay rafet na daaw def nañ seen kem kàttan ren itam waajtaay wi macha allah dara desu ci ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan suñu borom kàttanal ban yi nga xam ne yéene nañ ko nu mën koo defee noonu ba mboolem ñi nga xam ne ñoo fi ñëw mën a ñëw ci jàmm fekk fi jàmm te itam kenn du am benn jafe-jafe waaye sëriñ bi nag mi ngi fàttali ñi nga xam ne ñoo yor daamar yi Cheikh Mamadou Fadil daana dénkaane ba loolu am na ñu koy wax kotub Cheikh Mamadou Fadil kon nañ ko nafaraat bu baax a baax a baax nañ ko nafaraat bu baax a baax a baax a baax ndax ku jóg ngir yàlla di ñëw ci bis bu tedd bii yàlla moo yor bakkan ni moo yor lépp waaye lu ne day am sabab koo xam ne nag sa bokk na ci ñi dénk ñu leen war leen a indi kon nañ doolee sabab lu baax a baax a baax di noonu la sant sëñ Abdoul Ahad Ka ndax ku ne xam na taxawaayam ni ma ko waxee woon sama yoon ca ca fan yee dama ne woon moom daa wax yéene boppam waaye ku nekk xam ne diggante Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy kiyam ak Cheikh Mouhamadul Fadil waaye kenn ku nekk itam xam na cër bi nga ne moom la ñu ko dénk kon taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci bis bi di ko taxaw ci bis yu demee nii sëriñ bi nee na gis na ko bu baax a baax a baax di xam xamle itam wàccaay ba mu tàmbaleeg léegi mbooloo mi nga xam ne ñooy sëti Cheikh Mouhamadul Fadil yi rawatina ñi nga xam ne ñoo yor wàllu li ñu tuddee taqaafa wàllu culture def nañ fi ay doxalin yu am solo ni ñu ko baaxaw ngir bokk ak jokk ak bokk ak fedd li kóllëre yi nga xam ne ñoom dañ ko seqoon ak Cheikh Amadou Fadel Cheikh Amadou Fadel ñëpp ko seq ñëpp ñëpp li seqaloon kóllëre ñëpp ko bokkoon waaye ñoom at mu jot ñu di ko feeñal tànn ay kër dem fa dundalaat kóllëre googee waaye fedd liwaat bokk ga dem nañ ko sa sëriñ Mor Roqee Bousso ku ne xam ne ni mu demewoon ak sëriñ bi ku ne gis na sëriñ bi bi muy nettali loolu ma doon junj muy njëmbalam goog yi ba leen ku baax ci woowee wax leen kàddoo bi tedd yooyee ci la Cheikh Mamadou defoon bay yooyu kon diggam ak sëriñ bi lu yàgg la demoon nañ Louga itam ku ne xam njabootu euh, njaambor ni ñu demee ci sëriñ bi ñu def fa bis boo xam ne bu am solo la mboolem ña nga xam ne ñoo ñoo ko ñoo ñoo kii tase nañ fa bii ci guddi rek lañ jóge daaru moxti gii ataytu ilal mexta i fii daarihil moxti xasida goo xam ne gu yéeme la gu Cheikh Mamadou defoon ci borom daaru moxti waaye ñu dundal fa nag kóllëre gu doxoon diggante Serigne Modou Habib moom ak Cheikh Mouhamadul Fadil démb waxtaan wu am na solo lool maa ngi koy nettali Cheikh Abdoul Fatah Serigne Cheikh Astou Faye moom it dafa waxtaan wu am solo dafa taraanga yu yu rëy feddliwaat digganteem ak njabootu Cheikh Mouhamadul Fadil ñuy wax ne kon cérémonie officielle bi tam lu am solo la mooy bu ñu waxtaan bu ñu màggalee ba ci suba sa lañ koy def bëgg mu xaw a teel ndax day jege waxtu waxtu julli wi te ku ak tabax tabaxal cheikh mahamad cheikh cheikhuna al xadim radiallahu anhu jumaam ji doo noon ilimaan ji buñ koy defal waxtu buñ koy defal waxtaan ba julli jot danoo war a julli te sëriñ bi wax nanu ne wax nanu ne wa afdalu wa afdal wa afdalul ashyaa'i salaatuna fi awalil awqaati wa alam bi anna afdala taaxaati wa alam bi anna afdala taaxaati salaatuna fi awalil awqaati te lu ko nit di mas di defal ba waxtu julli jot daan nañ bàyyi loola dem joxe ji farata ja moo tax kon ñu bëgg bis bi waxtaan bi xaw a teel ñu mën fa fàttalikuwaat sëriñ bi eh, ni ma ko waxee woon rek delloo ko delloo ko njukkal loolu rek lañ man ndax Cheikh Ahmadoul Fadel kenn mënu ko fay waaye delloo ko njukkal feeñal sunu yéene te bis bi tam moom moo ko waajal ba noppi noppi di sant nag mboolem ñi nga xam ne jëru mën na si doon sant sax waaye sëriñ bi daanee rek ñu xam leen ne mi ngi yëg ndax fépp ci àdduna bi mën nañ ne fépp fu mu nekk rek dañ fay dundal bis léeg ñu yónnee ñu loo xam ne dañ naan lii moom xanaa Tuubaa la woon mm. ci mbooloo mu bari ak di ko dundal niñ ko war a dundalee mooy jàng alxuraan di jàng xasaayit di def istixfaar di def salaatu ala nabi di ñaan di fedd feddalik bokk di bernde loolu moom la baaxoo mën naa ne ci àddina bi yëpp dañ ko fay def ci bis bi sëriñ bi nee na kitam ñu nekk ci bitim réew mi ngi leen di xamal ne kat loolu seen bopp lañ koy defal ndax Cheikh Abdoul Fadal ku neen da nga am cër waaye moom yëg ko kon ci ndigalul Cheikh Abdoul Baraka Cheikh Abdoul Fata mi jottali cant noonu di di di di xamle itam ne eh, eh, bis la boo xam ne rek sëriñ bi daal ni mu ko waxoon wax naa ko ci njëlbeen gi ni ñëpp ñëw képp ku am yaakaar wala yitte na nga ñëw te fas si ko fii te xam ne sunu borom du la delloo loxoy kese yàlla nañ ci dugg ak bisimillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin te yàgg ko fekke lu bari lool sunu borom bàyyi leen fi sunu kilifa yi te may leen wér may leen kàttan ci barkeb Cheikhuna al Xadim radiyallahu pour le, les préparatifs du Magal Kazu Rajab édition 2024. Euh, cette réunion d'évaluation euh, est tenue à la suite du CRD qui a été tenu à Djurbel le 9 janvier 2024. Euh, nous sommes revenus sur donc, les engagements qui ont été par secteur. Nous avons abordé le secteur de la santé Euh, treize postes médicaux avancés seront installés au niveau donc de, de Touba. en plus de ça, il y aura quatre également dispositifs fixes qui seront mis en place. Euh, il faut rappeler également sur ce point que des ambulances seront déployées au niveau de la ville centre de Touba, euh, où nous attendons également une, disponibilité, en tout cas en médicaments, pour faciliter à l'ensemble des pèlerins qui seront donc dans le besoin de pouvoir bénéficier donc de soins médicaux. Euh, il faut ajouter donc pour le, ce qui concerne donc le volet, volet, toujours dans le domaine de la santé. Les services d'hygiène ont déjà démarré les opérations de désinfection et de désinsectisation. Et moment où je vous parle, donc 82 domiciles ont déjà été traités. Il reste bien entendu donc une liste de 33 domiciles qui seront traités donc à, à la suite donc de euh, pour ce donc le volet eau et euh, cinq camions citernes sont disponibles au niveau de la ville sainte de Touba. Et dès aujourd'hui, ces camions donc, seront mis à la disposition du comité d'organisation qui pourra donc de manière préventive donc, déjà remplir les bassins qui existent au niveau des domiciles, mais également les bâches à eau qui seront récupérées au niveau de Porohan. Parce que donc, les bâches à eau de, de, de l'Ofor donc au niveau de, de, du Magal de Porohan. Mais ces bachaos seront acheminés au niveau donc, de Touba dès donc, euh, demain euh, par euh, effectivement l'aide d'un camion qui sera mis à la disposition par le comité d'organisation. Euh, sur ce, point également euh, de, de l'approvisionnement en eau, il faut rappeler que les forages dont on avait signalé une baisse de débit, ces forages ont été relevés et que donc nous osons espérer qu'il n'y aura pas en tout cas de pénurie d'eau, en tout cas pour ce qui concerne le Magal de, de, de, Je dois rappeler que même pour les camions, le, ce qui a été sollicité, c'est un nombre de 30 camions citernes euh, et un nombre également de 30 bâches à eau. Euh, mais donc en plus donc, de ces des cinq camions qui sont disponibles, l'OFOR a déjà fait une demande au niveau, donc, euh, au central pour donc, un renforcement de ce dispositif de camions au niveau donc, de la ville sainte de Touba. Pour ce qui concerne la Sonaget, les activités donc, de nettoiement ont démarré depuis le 22 janvier. Euh, et pour le moment, en ce, en moment, donc, les, les, les, agents donc, de nettoiement sont sur le terrain euh, pour donc, rendre euh, plus propre la ville sainte de Touba. Concernant donc l'approvisionnement euh, en, en, électricité, deux groupes électrogènes seront mis à la disposition donc, du comité d'organisation par la Sénélec. Mais en plus de cela, donc 60 agents seront déployés sur le terrain pour, que, pour intervenir le plus rapidement possible s'il y a donc des problèmes qui sont signalés concernant donc euh, le volet électro électrique. Euh, il faut rappeler que donc l'extension euh, l'extension donc électrique, notamment vers la, la, la, vers Ndindi, a déjà été démarrée et, en, et les travaux sont actuellement en cours. La ville également sera mise hors délestage, euh, aussi bien pour le, le Magal que bien même donc euh, pour permettre en tout cas aux, aux pèlerins donc de, de, de, ne pas avoir de difficultés dans ce, domaine. lanternes aussi sont déjà reçues et que donc le, la Sénélec attend d'autres lanternes qui seront déployées donc au niveau de la ville sainte de Touba. Pour ce qui concerne le volet euh, sécurité, aussi bien la gendarmerie euh, que donc la police, mais également les sapeurs-pompiers ont rassuré en tout cas le comité d'organisation par rapport donc à, au, au, au, matériel, mais également aux moyens humains et qu'ils déployeront au niveau donc, de la ville sainte de Touba pour une bonne couverture sécuritaire donc, de, cette, de ce, de grand événement. Euh, en ce qui concerne euh, en le volet environnement, déjà les permis de coupe de bois sont euh, disponibles et le comité d'organisation a déjà pris contact avec le niveau central pour donc prendre possession de ces, de permis de coupe de bois. Ce qui concerne également le, les contrôles, notamment des denrées alimentaires, mais aussi donc de l'abattage des, des, des, donc des, des, petits ruminants, mais également des grands ruminants. Euh, les services concernés, notamment élevage et également les services de l'environnement, euh, du commerce autant pour moi, sont en train donc de, de, de, de mener donc les contrôles qu'il faut pour donc euh, vraiment donc permettre euh, éviter qu'il y ait donc euh, mm, des, des, des, abattages clandestins ou euh, des difficultés donc que les pèlerins pourront rencontrer dans, dans ce cadre. pour le volet communication, une ligne, une ligne téléphonique a été mise à la disposition du comité d'organisation, mais la Sonatel a aussi mis à la disposition donc, de ce comité d'organisation deux flybox Euh, et aussi à accompagner ce comité d'organisation en crédit Illimix pour leur permettre donc de bien préparer cette, cette, cet événement. Euh, je pense que donc, euh, nous sommes en train en tout cas euh, de bien réussir l'organisation de ce grand Magal, en tout cas le Magal de Kazuradiap, édition 2024. Et j'ose espérer que nous ne rencontrons vraiment pas donc, de difficultés parce que l'État en tout cas déploiera tous les moyens qu'il faut pour que donc cet événement se passe donc dans de, très bonnes conditions. Je vous remercie.